autre chose pour le Sénégal léegi léegi nee nga du ñu am majorité donc yow amatoo inquiétude jëmale ko foofu. non mënuñoo am majorité temps. D'accord. C'est impossible. ba tey dañuy des ci wàllu campagne bi démb Amadouba dem na fofu ci Kidira Goudiri ginnaw loolu nak nee ko dal mi ngi koy inviter ci ben débat bo xamanteni ni travaux euh, pratiques lay doon ginnaw nak bi nga xamanteni lepp li nga xamanteni moy cru bi nee len jox nañ len 8 milliards alors que huit milliards rek la wul sen problème ci ay chiffres yu ñu dégg la rek gisuñu dara luñ fa tek mais mais mais xam nga moom moo tàmm milliard ba nga xam ni Ousmane Sonko dafa tam ay milliards. parce que dafa xamul qu'est-ce que c'est qu'un milliard. moy waral milliard dafa yomb lol ci mom Macky Sall sàcc na ay milliards wax nako fi ba ñuy bëgg a ministre yi sàcc moom milliard lu reuy la ci mom mais un milliard milliard ñun dafa nous sommes dans un état temps. l'état dafa am nu muy doxé cela veut dire il y a ce qu'on appelle un budget. bi nga xam assemblée nationale moo koy voté ñu prévoir ci lépp mais assemblée nationale bam ñëwé même da koo tas donc même élection législative yi ñuy jëm xawma ma fan nañ jëlé budget bi mais waroon nañ ko expliquer au Sénégalais parce que c'était pas prévu c'est la ci ci loi d'orientation yi nga xamni ne programme nañ ko ci loi de finances yi nga xamni dafa wara euh, pro dañ ko wara a programmer pour des élections parce que état bi sóorul woni élection war na am fi ne nii donc moy waral ni doone damay jël 8 milliards def mais 8 milliards yoy anamu ak ñan lañ ko jox ak nan nañ ko sédalé parce que mi ngi dégg naa ko mu naan ay ku nekk am na fa ceeb am na diwlin ñi leen kii amatuñ benn problème population bi. Mhm. na dem ba foofu mu xool la population. parce que man je me suis ko que depuis lors taxawu fa ba pare te taxawul même mbuur ga nga xam ne xale yaa ngi dee. te bu campagne ne fi lu nekk dikk xale yi lu nekk même du ñëwee licence de pêche yi da koy jëli jox leen ko nga xam ni xale yi dootuñ demati fenn léegi géej gi dina am jën dina am lépp. biñ ñëwé ñi def seen monde muy vidéo montage yooyu naan kilo francs, 100 francs. xaw 200 francs mm-hmm. mais kilo jën ñi lek jën baax ni kilo sëdd mi ngi jar 4500 jusqu'à présent moy mm-hmm. waral Ousmane Sonko bo nga xamné ne ne maîtrise absolument rien du tout que mm-hmm. waxam yépp waxi milliard la parce que xamul lan un milliard milliard Ousmane il faut ñu togg tégal ko milliard ndax mom mësa gis milliard nako milliard moy junni million et puis état dafa am lu trésor public trésor public bu Sénégal doo ko jëloon yëpp nga boolente ko amul xaalis boo xam ni mën na trois mën mën na mën na mën na euh, cent dix milliards yu fa ne

sa vingt et un millions sax pour que mu fay ko c'est un problème mooy waral ministère yi duñ la amee da ngay daw ba dee parce que xaalis ba ba ñuy xaar dafay tardé pour yegg ci ci d'accord sànq